gaa yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñiy suivre Mo Sport ñu war ñëween ci benn combat boo xam ne am na ci diggante Reug Reug ak sa mu nekk la 5 mars maanaam mu nekk dimanche bi njëm mu nekk combat boo xam ne combat examen lañ koy tuddee ci ñaar ñëpp. ku ci réussir da ngay dugg cours regal lool lepp dañ koy leer ci vidéo bi wax kuy saké wax kuy rëg wax sen performance mais laataa ta lool dañoy ñinga ci page bi ngeen abonné da nga bëgg ko notification bi pour ngeen vidéo taalal fi ci remos pour ñu bayyi dara ci ñaari bari nak ñu ñëk ci ki nga xamné moy reug reug nek xalé bi nga xamné ku ko déggul xam nga ko doomu papa kan bayam wane lu rëy rëy ci lamb reug nek xalé bu tëlool pot li nga xamné moy li simple bi am fi ay centaine de combat am fa ay victoire yu dul jeex néew fa loolu ay défaite lu jafe ci mbër ndekk mbër moo xam ne dugg na arène am lu tolloog ci seize combats am quatorze victoire am deux combats yoo xam ne maanaam kenn joxu ci ndam mu nekk loo xamante ne bii nag lu extraordinaire la amul benn defet moom Reug Reug kon xale la boo xam ne ñëpp a ngi bàyyi xel ñu jóge ci Papa doom doomu Papa Kan euh, Papa Kan ji Reug ñëw ci kenn mooy Sa Thiès di doomu Double Less Triple Less bàyyam bi nga xam ne nekkoon na champion d'Afrique jël ay médailles yu bare bari ci monde bi ci wàllu sport nekkoon fi roi des arènes ci làmb ji maanaam mën nañu wax boobu titre roi des arènes amul mais dafa bokkoon bëri gënut ci làmb ji Kiri Saaka nekk xale boo xam ne am na toll ci ay 16 combats am ay 2 défaites wone ay performance yu reeri ñun nen ñu sell ci mom excellence fu mu defé defee ñaari day raté moy digënté ak malinya bu ko daan directement ci kaw mu ñàkk ko digganteem ak boyña bu ko daan tay mo wara a ko maro ko Boy Niang toll mu ñàkk ko tey nag war a 3e chance mu reer rek bu ko daanee rek directement day dugg ci loñu modlo loñu Bombardier loñu ñoom Eumeu Sène loo ñoom Tapha Tine kon nak luñu def loolu di wax lamb ji lamb ji nana neex lamu la yo xam jom joom enjeu la ñuy wax que le maire gagne kon nag loolu moo nekkoon vidéo bi di wax ci ñaari xale yi nga xam ne ay ndamu Sénégal lañ dinañ ñaan jàmm ak wér ba bés ba jàmm kon ñu wax ku ngeen ci page bi nga abonné da nga bës ko notification bi pour ngeen am si vidéo au taaral fi ci Ribot Sport nañ def yeneen jàngat nag ci lamb ji ci mbër mbër mais ci yenn vidéo lay doon.